dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yénekaay gii di réew mi ko di quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak Karamba Diaby député allemand la d'origine sénégalaise maanaam ma ngi fekk baax ci réewum Sénégal moo njëkk nekk député bu ñuul ca réewum Allemagne fan yi nga xam ne moom la ñu génn maanaam bu ñu sukkandikoo ci ay waxam dañu ko doon menacé de mort di ko dànkaafu di ko wax ne danañu la rey ba pare dañu koy boddi maanaam ca réewum lu jëm ci mbirum racisme bureau fan yi ñu génn dañu ko attaqué woon song ko ay sàmba buy maanaam ñoo defoon mel attaqué ko ak i bali fetal maanaam dem fa di tuyi tuyi waaye fekku ñu ko fa te bu ñu ko fa fekkoon maanaam dañu ko rey moom Karamba Diaby xëy fàngaam ci yéen kaay groupe promo consulting gi di nettali mbir ma nan la deme ak nag waa almaañ nan la ñu ko taxawoo ak maanaam nan lañ ko doon jàppale ak ki nga xam ne mooy chancelière Angela Merkel ak ministre bi ñu denk dénk kaaraange réew ma ak waa Allemagne ci boppam nee na ñoom ñëpp maanaam doon nañu ko jàppale bi ñu ko laajee ne ko enquête bi jamono ji fan la toll la mu xam le nee na enquête bi maanaam ñoo ngi koy doxal te nag la ñu bëgg mooy dëgg dëkk gi maanaam lépp daal di leer te nag maanaam moom kenn mënu koo xooxutal jamono ji nag ma ngi ci Dakar journal bi di réew mi quotidien moo xëy séq waxtaan ak moom yéen a kaay gi de la Tribune mu xëy di ñu xamal lan ñu pose première pierre maanaam xeer wu njëkk stade olympique ci jam ñaajo waaye nag lañ sa dugal ci ay koppar toll si téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci ay milliards yéen a kaay gi de la na nag la xam ne moom lañ bëgg a defare bi maanaam sa jam ñaajo njëg googee dafa cher ndax ñu ko méngalee ak bi nga xam ne war amee muy stade boo xam ne bu mucc ayib la Côte d'Ivoire ñoo ko defaree cinquante milliards bu dee nag stade bu Cameroun di Radès boobee ñoo ngi ko defaree quarante neuf milliards te stade yooyu bu ñu ko méngalee ak bu Sénégal maanaam stade olympique bu Diamniadio bi cher na loola en tout cas dëgg gi nañ ko wax waaye nag stade olympique bu Diamniadio bi dafa cher lool ci réewum Sénégal yéen a kaay gii di réew mi quotidien ak l'observateur ak L'As mu ñu xamal la ñu niki démb ci conseil des ministres bi njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay dakkal bi ni nga xam ne maanaam moom la ñuy wuutee ay oto ndax nag nag dafa gis ne am na ak njublang ak scandale goo xam ne maanaam am na fa toll ci juróomi milliards ak yàq la Macky Sall bëgg a ci ni nga xam ne moom la ñu wuutee ote ci administration bi journal bii di libération mu ñu xamalaan ñu niki démb ca conseil des ministres njiitu réew mi di président Macky Sall maanaam wane na fa ak meram loola mbàmbu la moo am yëfu yaa ma neex dëgg ci fi nga xam ne mooy ARTP ndax nag ñaari bulit yoo xam ne jënde ko lu toll ci cent quarante sept milliards maanaam téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaar ci ay milliards yéen ci dialogue national beeg dialogue politique bi la mu xamle nee na lu jëm ci wàllum nekkum njiitum réew ba pare nag nekk chef de parti loole nag ñi nga xam ne ñooy société civile bi maanaam ñoo ngi dànkaafu Macky Sall ñoo ngi koy pressé ñoo ngi koy teg pression ngir nag ma Sall daal di cay deltu ginnaaw yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal naan ñu deltu ginnaaw ca mbir moomee du yomb ndax nag nekk njiitum réew ba pare jiite à parti loolee kenn mënu koo tàqale ci réewum Sénégal société civile bi bu ñu sonal seen bopp yéen a kaay gii du mu xëy di ñu xamal naan ñu mëri taw ñaan mi nga xam ne jamono moom lañ dénkoon njàng mu kaw mi jamono ji bay ba mu def ndànk ndax ñi xam ne ñoo nekk ci pouvoir bi maanaam moom la ñu bët ngir nag daal di koy sànk ndax am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi wax ne maanaam moo nekk ci ginnaawu liifuru Pape Alé Niang bi ñenn ñi tamit ñoo ngi wax maanaam giitangaas gi nga xam ne ma ngi koy giitangaas ak Mansour Faye maire bu Saint-Louis yéen a kaay gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra moom nag daal dinay mer ba maara détaillé ci ji nga xam ne maanaam waa police yëkkati nañ sa ay kàddu yoo xam ne moom jàpp na ne yu ñàkk war ma la ak kàddu yoo ni du dëgg Mame Makhtar Gueye bu décembre nee na nag premier ministre bu Canada di Justin Trudeau bi mu dikkee Sénégal jël na lu toll ci cent quatre-vingt-cinq millions maanaam jox ko kuréel yi nga xam ne ay góor jigéen lañ ak ay jigéen ñoo xam ne ñooy sëy si seen biir maanaam ay lesbienne Mame Makhtar Gueye ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien la mu xam ne nee na récépissé yi ñu jox góor jigéen ñi maanaam dañu ko war a supprimer ndax récépissé yooyee moo tax ñu leen di jox xaalis yéen a kaay gii di Vox Populi xëy nag dikkal ñu ci mbir mu doy waar benn waay ne dañu ko tëjoon ca kasu bu rëbës moom nag dafa xaru ca a kaay gii di record Touba dikkal ñu ci Idrissa Gana Gueye mi nga xam ne ma ngi ca Paris Saint-Germain jamono ji nag la nga xam ne moom la waa Paris doon xaar ci Gana Gueye ba léegi ni mëtalagu ko yéenekaay ka di sunu làmb mu ñu xamal lan ñu combat Modou Lo Ama Baldé bi nga xam ne demul ci nga dikkul mbay laara la ko waral mooy Luc Nicolaï mi nga xam ne moom lañ denc ci kasu bi am na ñaari promoteur yoo xam ne dañu ko bëgg a peer njaaye maanaam dañoo bëgg a jaar ci suuf nag daal di tëgg combat Modou Lo Ama Baldé maanaam duñu ko bëgg a yoxosu